validité d'un rapport dès que. njeexitalu ab rapport ci jamono bi nga xamee ni ña ko def la ñuy sàkk moo di ay daan. je ne pense pas à moins évidemment que les poursuites euh, préconisées. ñaar moo mun a am su fekkee ni daan ya sàkku dafa dëgguwul te jàpp ma ni sax looloo am. le cas à moins qu'il y effectivement des euh, des raisons de penser que les infractions. su dul loolu bépp digle boo xam ni rapport bu corps de contrôle bu mag bu mel ni cour des comptes mënul am benn njeexital bu mooy ay poursuite maanaam topp ña def ñaawteef yooyu. contrôle aussi prestigieux que la cour des comptes la finalité ne saurait être à mon sens que des poursuites. te poursuite yooyee danañ ko dénk ay magistrat ay juge yoo xam ni dañoo tëddee njaaxaanaay rax ci dolli am expérience ñu xool ban suite ak ban daan lañuy jox ñi nga xam ni ay corps de contrôle dañ leen épinglé. des